asxaabika wa durriyataha min alsheytaani irrajim rabbi audu bika min hamazaati alshayatini wa audu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi wa ummatihi alxurri almayamin bokki jullit yi bokki taalib yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di leen ndokkeel ci bis bi ñu weesu mooy iidul fitril mubaarak di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala liñ ko jaamu lépp ci boor biir koor gi mu nangul ñu ko <coughs> te bindal ñu ci tuyaaba ju dul jeex ñoo ngi nuyul ak di sëriñ bi di ñaan yàlla tabaaraka wa mu yàggal ko ci suñ kanam te ko fan wu gudd ak wér ba mu yeggale mboolem naalam yi dañ ànd koog moom mbokki jullit yi tey dañoo dikk ngir waxtaane ci tomb buñ tuddee al axillaul arbaa lil abdil xadimi radiallahu anhu maanaam ñeenti soppe yi nga xamante ni mëneef na cee dàkke bëgg-bëggab sëriñ tuuba radiallahu anhu ñeent yooyu nag mooy ar rabbul karim wa nabiyul azim wal quraanul karim wa ramadan allazi unzila fihi al quran soppe la yoo xamante ni soppe sëriñ bi la te taalibe bu nekk war naa mën a dàkk bëgg-bëggab sëriñ bi ci ñeenti soppe yooyu ngir roy ci moom mooy ni mu bëgge woon yàlla tabaraka wa taala ak ni mu bëgge woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ni mu bëgge woon alquranul karim ak ni mu bëgge woon jaamu yàlla rawatina weeru koor bi jiitu mooy ni sëriñ bi bëggee woon borom bi tabaraka wa taala loola nag cëslaay lu rëy la am ci alquranul karim ci laaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci suratul baqara ba borom bi di waxe ne walladina amanu asaddu xubban lillah ñi gëm yàlla daal bu ñu leen doon laaj dañ tontu tontu lu wér bu ñu leen doon laaj ku ngeen gën a sopp gën koo bëgg seen tontu buñ tontoon tontu la war ca ñoom mooy dañoo war a tontu ne yàlla mooy suñ soppe bi gën a mag moom lañ gën a bëgg te mbëggee googu nag gi war a jóge ci jaam bi jëm ci borom bi mooy nangu koo topp qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhibbukum allah ndax borom bi tabaraka wa taala dafa wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waxal gaa ñi ne leen fekkee dañuy woote ne dañ ma bëgg man yàlla nañ la topp buñ ko defee rek loole firnde la ci ne bëgg nañ ma man yàlla fattabiuni yuhibbukumullah sëriñ bi mag bi nag sopp gi mu soppoon yàlla taxoon na mu bàyyi nelaw guddi ngir jaamu ko te loolu tolluwaay bu rëy la te mësta waajal ab lal ngir tëdd ca sopp gi mu soppoon yàlla moom sëriñ bi tam taxoon na mu bàyyee léppam yàlla moo tax mu ne woon lahu dahra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukli sama yéene yépp bàyyee naa ko yàlla sama xam-xam bàyyee naa ko yàlla sama xidma muy sama liggéey bàyyee naa ko moo ko moom sama ruux ak sama yaram sama lépp sax far dara laa ci bàyyiwut foofu la sëriñ bi nekkoon ci digganteem ak boroomam bàyyee ko léppam di ko jaamu di sellal njaamu ga te wéetal ko ndax mbokki taalibe yi lu jaral sëriñ bi mu giñ loolu rëy na fa moom te sëriñ bi nag dafa giñoon ne ki mu gën a bëgg mooy yàlla ginnaaw yàlla ka ca topp mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koo giñ yamiinu rabbi inna rabbiya ahab lii min siwaahu wannabi baadu ahab gin naa ci yàlla ne ki ma gën a sopp mooy yàlla mii sama borom ka ca sës mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma ngi ko wax ci xasida gëm tënke laa tajalu duaa ar rasuli baynakum ka duaa i baadikum baada kon lu jaral sëñ bi giñ loola ñor na ko te nee na borom bi la gën a bëgg ginnaaw bu weesoon ak yonente ba ci sës ngir firndeel itam loolu itam waxoon nañ diineem mooy sop yàlla ak bëgg ko diin ya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan alayhi sarmada السود أعلم محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا rasulullah sëriñ bi waxoon na ne diine mooy sopp yàlla ak bëgg ko diini ya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan alayhi sarmada ma ngi ko waxee ca xasida gëm tënke muhammadun madaxa ahmad mu waxaat feneen ne diini ya xubbuhu wa xubbu dikrihi wa abidihi rasulihi wa sukrihi sama diine mooy sopp yàlla ak sopp alquran ak sopp jaamam ba tey yónnentam ba ak sant ko maa ngi ko waxe ca xasida gam tënke saratu yowmal ahadi ama xal sasi mu waxaat feneen itam diini ya xubbullaahi ma xubbillazina idaqa ma sama diine mooy sopp yàlla ak sopp ka nga xamante ni moo ma notal noon ya te mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam maa ngi ko waxe ca xasidigam tënkee faqadi nasarahullah kon sëriñ bi itam ngir sopp gam sopp yàlla ku mës a bëgg ngir yàlla tax waaye ku mës a wan gannaaw itam ngir yàlla tax ku mës bëgg daf laa gis nga tënku ci ndigalal yàlla tax mu bëgg la ngir loola ku mës a wan ginnaaw itam daa gis ngay xëtt ndigalal yàlla moo tax mu wan la ginnaaw xubbiya fillaahi wa buxdi fiihi lii awsala ma kuntu astafihi ca minanul baaqil qadim li seex Muhammadul Bashir radiallahu anhu kon loolu lenn la ci li ñuy dëkk dàkkee bëgg-bëggab sëriñ bi mooy bëgg gi mu bëggoon borom bi tabaraka wa taala ñaareel ba bëgg gi mu bëggoon téereb yàlla bi qiraatan wa istiqraa daf ko daan jàng di ko jàngalu moom téere bi muy alquran sëriñ bi daf ko daan jàng di ko jànglu wa kitaabatan wastiktaaba daf ko daan bind di ko bindlu wa xifzan wastixfaada di ko mokkal ak di ko wattu ak di sàkku ko jàppale ca wattu ga ak mokkal ga ndax wax na ne alquran mooy soppeem di xaritam di ab doktooram yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa qablu kunta tabibi mu waxaat feneen ne mooy téereb yàlla bi mooy sama xarit di ma sama soppe waaye ku ma bëgg itam xanaa dafa xool gis ni ma bëggee alquran tax mu bëgg ma ngir loolu kitaabu rabbi lii xalilun wa xabib yuxibu nii bi xubbihi kullu labib maa ngi ko waxee ca xasida gëm tënke dikran wa sukran minka mu waxaa lu nuroog loolu itam ca jësbul xulub huwa xalilun wa xabib lii muxniyan li an tabib bihi yuxibu ni labib yatlubu xayral laqami alquran mooy xaritam di soppeem te doy na ko ab docteur bihi yuxibu ni labib mu dellusiwaat mooy bokk na ci tont yi sëriñ bi wutal taalibe yi kuñ ci laajoon loo soppee sëriñ bi ak loo ko toppee lu tax nga bëgg ko fii moom wutal na lañ wutal nañu fi tontu mooy ku tontu ne dama xool ba gis sëriñ bi fi mu teg alquran ak ni mu ko bëggee ma bëgg ko ngir loolu am nga tontu loo xam ne sëriñ bi la ko sax bihi yuhibbuni labib fee mu ne yuhibbuni bi hubbihi kullu labib moo taxoon mu joxe ndigalam la sax ci ne képp ku aju ci moom nay saxal di jàng alquran ndax mooy ngeen ji tudd yàlla kullu muridin bi yaluudu fal la tilawatan li xayri dikkin qadrusim kon loolu mooy ñaareel bi ci liñ mën a dàkk bëgg-bëggab sëriñ bi te mooy alquran ñetteelab liñ mën a dàkke bëgg-bëggab sëriñ bi mooy bëgg gi mu bëggoon sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax moom itam lu ko jaral mu koy giñ loola ñor na ko te na billahi allazi laa hu maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu ñuy jaamu tam yeyoo jaamu ga ku dul moom amul benn buur bu ñuy jaamu te jaamu ga di am njariñ mooy ga di waral ñu de teg la ci ay daan ku dul yàlla ñu ne ko looy giñ mu ne xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam sama dund sama jóge fi wujj sama boroom sama yëngutu yépp samay dal yépp jox naa ko sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mu waxaat feneen ne ahmaduna al muxtaaru qatan lii ahab min xalqi man ilahuna al ahab ca xasida gam tënkee wa makkan naa mu ne ahmad miñ tuddee al muxtaar te mooy yónente bi moom laa gën a sopp ci luy mbindeefam yàlla loolu itam firnde ju rëy la ci ni mu bëggee woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na itam ne yonente bi mooy wasilaam baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul nee na képp koo xam ne am na xel tey jëfandikoo sa xel te xam ma dana xam ne awma benn sëriñ awma benn wasila ku dul yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam te yonente bi itam moo nekkoon mbégteem moom sëriñ bi mooy wéttalam mooy mbégteem xolam muhammadun unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaai wa raaxaati mooy sama wéttal di sama mbégte di sama loo leer eh, xol di leeri samay cër mooy sama noflaay maa ngi ko wax ca jaalibatul maziyaat wa daafiatul raziyaat sëriñ bi itam wax na nee na bu amee mbëggeelu yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu doy na ko te doyloo na ko ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal yaktafi maa ngi ko wax ca futuuxul mukarrim fii am daaxil mukarram am naa mbëggeel ak yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu doy na kuñ jox lu doy daa war nag fal muti kafaafan yaktafi kon loolu muy bëgg mu bëggoon yoon bi aleyhi salaatu wasalaam manees na cee dàkk ak mbëggeelam ñeenteel ba te moom la ñuy mujje mooy ni mu bëggee woon jaamu yàlla te lañ cay indi misaal mooy weeru tedd wii ñu weesu muy weeru koor fam ko tegoon ba daan dëgmal si da ko teertoo xasida gum ko tatagale ci yaa xayra dayfin ata ma ngi cay wax ne inni uhibbuka yaa sahra siyaami bila xissin fa ahlan wa tarxiban bila adadi yow weeru koor daf dama laa sopp te sopp gi ma sopp raxuma ci lenn lu ca bokkut kon maa ngi lay dalal di la yaatal ci loo xamante ni mënee su ko wàññi inni uxibuka xubba daati daa talabin min maliki fiika isaadan bila awadi sopp naa la sopp goo xamante ni sopp ak jëmm la sa jëmm ci boppam laa sopp rek di sàkku ci yàlla mi moom ak texe goo xamante ni coono du ca toftalewaat ab coono du ca tege washad bi xubbika xubba daati yaa amali wa kun xabibiya yowmal hawli wan nakadi na nga seere ne bëgg naa la bëggeel goo xamante ni maa ngi la koy seere yow sama yaakaar ndax ci yow laa yaakaare ay jaamu yàlla yu ñu nangu kon nanga nekk sama sopp bisa njàqare ba ak tiis wa mooy bis pénc mu tàggoo woon ko ci yaadal busaaraati bil ayaati wa suwari lishat bi kaw ni ya abidal muhsini suwari li taxoon mu fanku weeru koor mooy ci weeru koor la ko yàlla joxe woon alquran ilayya rabbi salaba alqurana fi ramadana fa sukuuri ana ca xasida gam tënke woon laa yasbiquunahu bil qawli ci wóoru koor la ko yàlla tere la woon ba taxoon mu ne woon jadaba lii sahra ramadaana li karam baaqin karimin fa ana iyan saram maa ngi ko waxe ci xasida ak jazaau sahri ci weeru koor itam la gise woon yonent bi alei salatu wasalaam ci atam 1311 fii ci Tuuba kullu zamanin la azalu atlubu liqaahu wa artaji wa argabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz dafa yàggoon a bëgg gis yonent bi alei salaatu wasalaam te xam ne li muy sàkku yombut ba ne borom bi kabura azza ma talabtu ya aziz xam naa ne li may sàkku yombut waaye ku ko sàkku te jaare ko fi ko jaare jaare ko ci yow dana ko am ma ngi ko wax ca fatxul fattaax fii madxil ci weeru koor la jote woon al wirdul maquz ca Mauritanie ci atam 1322 ci weeru koor la gise woon la ko ahlu badrin siyaare si woon ba taxoon mu ne inna allazina sahidu fi lmaaraki naxaw ila ziyarati fi ramadan daa i li wajhi man xaba bil fayadaan ca xasid ak sahru ramadan kon nag li ñuy tëje mooy ku bëgg aju ci sëriñ bi bëgg a boole boppam ci moom ñeenti yëf yi war na ko war na ci dàkk bëgg-bëggab sëriñ bi war naa sopp yàlla bëgg ko te di ko jaamu te lal jaamu ko war naa sopp yonent bi aleyhi salaatu jox ko lam yayoo te di ko roy ci wax ak jëf ak pas-pas war naa sopp alquraanul karim ci nangu ko jàng ak di ko jàngulu ak di ko settantal ak di jëfe lam digle ak gëm ko war naa sopp jaamu yàlla rawatina weeru koor ndax teraanga yi yu ñu tudd yépp sëriñ bi ñu ko amee woon ci weeru koor kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala bëgg-bëgg sëriñ bi yépp mu dimbalañ ci xiirtal ñu ci di ñaan yàlla sunu borom mu yàggal fi sëriñ bi te may ko fan wu gudd ak wér ba mu yeggale mboolem naalam yi tañ ànd koog moom wa axiru daawaana an ilhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعظم هذا الشهر حيث جعله فاتحا لشهور الحج المبرور أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين رحمة اللازمين إلى يوم البعث والنشور أما بعده يا عباد الله اشكروا الله فالرابح من شكره واشغلوا ألسنتكم بذكره فالسعيد من ذكره waqsiduuhu fi talabil xawaa'ij fa huwa kariimun laa yuxayyibu man qasada wattaquu yawman yuuxadu fiihi binnawaasi wal aqdaam wala taqulu dahaba ramadaanu fa tastaxillu ficlal xaraam واستقبلوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق وتقربوا إليه بالصدقة والإنفاق وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وفي الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس في أزليته فلا عين تراه وحكم الأرزاق بين عباده هذا منعه وهذا وهذا أعطاه وهذا أسعده أشقاه أحمده على ما أهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبياء وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه وآمركم بتعجيل التوبة قبل أن يبلغ الأجل منتهى واحذروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واستغل كل منا بطلب دنياه فوا أسفا وقلة حيلته في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث ارحموا ثلاثة غني قوم افتقر وعزيز قوم ذل وفقيها تلعب به الجهال yaxfirullahu lana wa lakum wa li jamiil muslimiin amiin

akbar سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر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 أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام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 شابههم

assalaamu aleykum مددت يدي في البر والبحر سخر لي ذوي الأشر أنا أمد يدي للخلق مجتديا لدى عدا قلب كل صار كالحجر min baadi kawni abdallahi fi abadin wa baada kawni xadim alfajri dil fajari aw kayfa arkanu liddunya mujarradatan min baadi ma baatuha fi lusri walyusri am kayfa ashku liman ghurru bi bahjatiha ذوي التنازع والتثليث والخسر إلى النافع الرزاق مفتقر ولم أكن لسوى المغني بمفتقر لا أشتكي الضر للمخلوق مجتديا min baadi kawni abdallahi bilfiqari man qaala lii qablu anta alyawma muqtaribun inda nasaara dawi al asyaafi wassumuri jawaabuhu xasbiya allahu alxasiibu huna wa huwa alxafiidu alladi yugni an zumari inna alilaha waliyi sarmadan wa bihi أنجو وإني من خوفي عداي بريء والمصطفى المنتقى المختار واسطتي ورفقة الدهر أهل الخير والخبر wa huwa alwasilatu dun lii dunyan wa axiratan wa huwa alwasilatu lii dunyan wa axiratan bihi amuttu liwaaqi kulli muntasirin مولاي عبد خادم أبدا لمن يطيب ربي لي به عصري لمن به قد أغاث الله جملة من به استغاثوا وفازوا منه بالفخر يا رب بالمصطفى سق لي مناي معا يا من كفاني ذوي الإنكار والسخر inni la abduka fi sirrin wa fi alanin yaa man xamaaniya fi badwin wa fi xadari man raama hadma janaabi min ida zamani saraf وقته قبل بالمخزي العدا المضر من ظن أني لغير الله مرتحل أو لسوى المصطفى المختار في سفري صلى عليه بتسليم بشيعته من كونه لي أغناني عن النفر حتى يبارزني بالسيف ذا سفه وبالمدافع ذا حقد وذا غدر فالله يخذله والخلق تعزله والعار يقتله بالخزي والكدر wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri daa naf'in bilaa darari in shaa'a rabbi alladhi qad kaana lii wa ma'i rabban wa kuntu lahu abdan maa durari lahu xitaabi wa taatini munaaya maan min fadlihi alwaasici almugni dawi alwitari له خطابي وتاتني مناي معا من فضله الواسع المغني ذوي الوطر له خطابي وأرجو فوق مطلبتي من جوده النافع المستخجل المطر يا ذا السماوات والأرضين منفردا مع الهواء ويا ذا البحر والنهر inni faqiirun xaqiirun laysa lii amalun arju bihi lfawza min sawmin wa min sahari wa qutta lii minka man qaadat lahu sulahaa وقدتني لك من طوبى مع السور هب لي تلاوتها ارزقني حلاوتها وارزقني الكشف فيها والتزي الخوري خلد هداي بها هب لي غناي بها وسرمدا